Según las cámaras, esto fue el top de 2016. la touche, Habib. Il est devancé de Chesley. Et derrière, avec calme, détermination et sang-froid sur cette mauvaise de Krikoviak. Ouais, beaucoup de malice et puis surtout la mauvaise anticipation de la part de, de Chesley qui vient au-devant de ce ballon. Incroyable, dans un temps Cissé, il va quand même procéder à son changement. Il va sortir. Euh, et... Je m'appelle Magay Boy, je suis le coordonnateur du mouvement à l'appel de Khombol. Ah, commentaire bu dul bëgg rek bëgg rek ndax Khombolois yëpp tey bëgg nañ génn nañ jàkkaarloog écran bu toll nii boo xam ne bu buñ ko gisoon bër démb ak bërki démb dañ ko doon séntu ci télé yi ñu koy wane ay Champs-Élysées ñu koy wane place de l'Obélisque ñu koy wane sur la corniche aujourd'hui nous avons relevé le défi li ñu bëggoon mooy xombaluwaay du ñu am dara lu ñuy ñee di ko ñeetaane dëkk yu ndaw yi di ko ñeetaane dëkk yu mag yi dëkk yu Europe yi ak yu Sénégal yi tey li ñu bëggoon mooy xombaluwaay yëpp génn ñu wan leen écran bi ñu toog dans une ambiance wan lion yi fa ñu xaw ma dinañ ci jot xaw ma duñ ci jot wan leen ni dëkk yu ndaw yi ci biir Sénégal mbir mi yamul Ndakaaru ñu ngi yëngatu ñu ngi leen di supporter ñu ngi leen di accompagner ñu ngi tëgg seen i asiko ñu ngi toog ci écran di ko seetaan te du ci am dara loo xam ne nii dañ koy ñeetal tey li ci gën a am solo dañ koo tuddee koo xam ne nii doomu xombol la le professeur Fallou Cissé doonoon médecin équipe nationale du Sénégal durant pratiquement toute sa carrière accompagner les Lions dans toutes les aventures tey daf ñoo waroon tey doomu xombol ñu rendre ko hommage pour que lions yi xam ni fa ñu nekk ka nekkoon seen médecin équipe nationale dëkk ba mu jógee du dëkk bu ndaw ka nekkoon médecin wu équipe nationale du Sénégal dëkk ba mu jógee dëkk bu am taarix la bu am histoire la bu bëgg a yëkkati ci ku ca kaw tey loolu moo taxoon ñu delloo ko le professeur Fallou Cissé pour ñu xam ne xombol la xewee waaw dañoo toog rek ñu xool dal ne lii xew dëkk yu mag yi foog ñu fexe mu xew fi dañ fay organiser woon fan yële passé benn conférence conférence bi ñu ko tuddee woon Euh, euh, Sentu Asaman. di s'agissait d'organiser un peu une explication des nouvelles découvertes spatiales maanaam jawwono ji jaww ji naka lay doxee ñu indi woon fi ay télescope yoo xam ne ci lañ doon xool weer week jant bi ñu defoon benn projection ñu xool daal ne waaw projection bi ñu def sur la base de vidéo diaporama mën nañ koo soppali pour seetaan ci match Sénégal bu ñu egsee ci coupe du monde bi ñu ne waaw nañ ko jéem gannaaw bi la xool sunu mbokk Alaaji Mbay ñaar ca ca Parcelles Assainies ak waa Creston yi organisé woon lu mel nii ci finalu Liverpool ak euh, comment dire Liverpool ak ak ak Real de Madrid ba ñu ko gisee ñu ne ah lii bu ñu bàyyi muy xew Ndakaaru dañ koy xëcc indi ko sunu dëkk looloo ko yee ñit ñi ànd ci comité d'organisation bi ñoom ñëpp ñu xeex ko ba tey ñu am ci victoire di ñaan yàlla yii di ñëw xombol taxaw génn chaque match Sénégal dañ leen ko offrir ba keroog ñuy egg final incha allah mbir mi di neex xambaluwaay yi di génn ñuy supporter seen Lion waa Sénégal xam ni dëkk bu ndaw boobu ñu koy xombol tey taxaw na pour jël en charge les questions développement parce que ñun dañoo gëm ni yokkute Sénégal du nekk lu dul ni dëkk yu ndaw yu ndaw ndawaan yi ci dëkk bi dañoo yokk li tax ñun ñuy jóge fii di dem Ndakaaru foog ñu wëlbati ko tax ñu koy wëlbati foog ñu investir le développement local pour que Mbindy mën a wëlbati ko yeneen gox yi li leen di wax mooy mën naa ne du ne da ngay seetaan télé muy xewee Champs-Élysées du ne da seetaan télé muy xewee Ndakaaru da toog daal ne ñun ñu yàgg suñu télé yu ndaw yi ci salon bi donc dañuy offrir à nos la possibilité de vivre ce qui se passe dans les grandes agglomérations mën naa nekk waa Bambey foog ñu xam ne mën naa nekk waa Touba Toul waa Ndiène Sirax waa Ngaay waa Vélingara foog ñu nangu ni mën naa nekk jël ñu initiative yu mel ni di accompagner les populations pour inverser l'exode rural c'est ça accompagner le développement le développement à la base yokkute askan mu ngi tàmbalee ca ku ci nekk fa nga nekk di jéem a dund la nga xam ne nii yaa koy séntal di ko ñeetaane ñeneen ñi ñu amati baral gu ñu ñëwee yéen dëkk yu mag yi d'un contentement. Ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui n'était pas évident au début. On l'a fait pour accompagner les Lions du Sénégal et permettre également aux populations khomboloises de suivre en direct, comme s'ils étaient en Russie, les matchs du Sénégal. Cela s'est soldé par une première victoire des Lions du Sénégal. Nous nous en réjouissons et un appelons à une plus grande mobilisation de l'ensemble des sensibilités locales comme nationales pour que les gens se retrouvent derrière les Lions pour les pousser à la victoire jusqu'au bout. Oui, cette initiative est née du mouvement à l'appel de Khombol, de ses membres qui se sont dit qu'en réalité, que les populations khomboloises ne doivent plus rien avoir à envier aux grandes agglomérations. Ce qui se passe aujourd'hui aux champs ce qui se passe aujourd'hui sur la Corniche, ce qui se passe aujourd'hui à la place de l'Obélisque devait pouvoir se passer C'est ce que nous avons euh, réussi à faire. C'était un objectif qui n'était pas évident. Les membres du mouvement à l'appel de Khombol, le groupe d'initiative, le comité d'organisation se sont donnés la main dans la main pour pouvoir réaliser ça. Effectivement, ça n'était pas évident, mais on va le continuer. Chaque match du Sénégal sera retransmis en direct sur cette place-là qui permettra à tous les Khombolois de regarder le match et de supporter en Asiko, maillot, dossard, supporter un peu, pousser les à la victoire. Il faut qu'ils sachent également que ça ne se uniquement à Dakar, que ça se passe dans les du l'intérêt du mairie, que tous les Sénégalais se sont levés pour pousser les Lions à la dernière victoire. La c'est la finale. À l'endroit des populations, c'est de venir, puisque ce que nous faisons, nous le faisons pour Khombol. Ce que nous faisons, c'est positionner notre localité sur orbite, de sorte à ce qu'on n'ait pas grand-chose à envier. Nous appelons tous les, tous toutes les populations à venir rejoindre l'initiative. Il s'agit d'une initiative pour développer Khombol. Il s'agit d'une initiative pour faire de Khombol le laboratoire du développement local au Sénégal. De sorte à ce que les initiatives innovantes se prennent ici et pour pouvoir être dupliquées à l'intérieur du pays. Également un appel aux collectivités locales de l'intérieur du pays. Que l'on ne reste pas l'initiative aux grandes agglomérations. C'est Dakar qui prend l'initiative, c'est Bourg, c'est Thiès parfois, c'est Saint-Louis. Mais il faut laisser aux petites collectivités de prendre l'initiative et de porter leur développement, puisque le développement à la base et constitue aujourd'hui la base de tout développement durable. Il faut que les collectivités locales, Bambay, Ngaï, euh, euh oui, les localités de l'intérieur du pays, Kédougou, Belengara, prennent des initiatives comme ça, tout bas, tout Sira, pour que leurs localités puissent revivre un peu. Il a que comme ça qu'on en réalité, positionner les localités de sorte à ce qu'on puisse inverser l'exode rural. Ce qui aujourd'hui pousse les populations vers les grandes agglomérations à Dakar ne peut être résolu que si on investit les petites localités de l'intérieur du pays. pour que les populations reviennent chez elles pour pouvoir mener des activités. C'est des initiatives, c'est dans les domaines du sport, de, de, de, des loisirs, de la culture, de l'éducation, de la santé et dans tous les domaines, de l'emploi, de l'animation économique, de l'animation économique, puisqu'on arrivera à animer le développement à Pombol.